Samb mi nga xam ne moo nekkoon direction des renseignements militaires moom nag njort nañu ne néew bi nga xam ne moom la ñu gis moom la yéen kaay gi ñu xëy fekk fa Seydi Gassama bu Amnesty International section Sénégal moom nag nee na jamono ji nag li ñuy sàkko maanaam ñu ubbi ci enquête boo xam ne bu leer nañ lay doon yéen kaay gi de l'info njabootug ñaari gendarme yi ñoom nag nee nañu duñu nangu benn yoon ñuy daal di sacrifier seeni doom te nag seen xel tey na la la yéen kaay gi xëy di ñu xibaar naa ñu ñi nga xam ne ñooy njabootu ko ñaari gendarme yi ñoom nag nee nañu daal ñoo ngi woo kilifa diine yi ñoo ngi woo kilifa diine yenn yi maanaam ñu daal di yëkkati seen kàddu balay bëy di way mbuusa yéen kaay gi de la réveil quotidien xëy di ñu xibaar naan ñu mbokki di je Badji ak Fulbert Samb ñoom nag lànk nañ ba tëdd sa naaj wa bëgg ñoo dégg benn yoon ñuy wax ne seen doom yi dañoo lap loolee seeni mbokk ñoom bëgguñu ko dégg maanaam bëgguñoo dégg daal waaw ñu na waaw di je Badji dafa lap Fulbert Samb dafa lap loolee seeni mbokk démb nee nañu ñoom bëgguñu ko dégg benn yoon yéen kaay gi de la Tribune xëy di ñu xibaar naan ñu mbir mi bu ñu bëggee mu leer nañu def li nga xam ne mooy ab ba pare na xool caméra de surveillance yi ndax xam ne mooy Cap Manuel fi ñu wax ne fa la Didier Badji ak Fulbert Sambou nekkoon foofe nag ay caméra de surveillance moo fa nekk te ñaari gendarme yi ñoom nee nañu bërëb boobee nag bërëb la boo xam ne bokk na si bërëb yi ñu gën a sécuriser yéen kaay gi du nee na ki nga xam ne mooy Fulbert Sambou am na ñetti mbokkam yoo xam ne armée bu Sénégal woo nañ leen ba ñu ñëw nag daal di xool néew bi nga xam ne gis nañu ko xam ne si waaxu Cap lañ ko gisee ginnaaw bi leen armée bu Sénégal woowee nag ñetti mbokk Fulbert Sambou ñëw nañu waaye nag bi ñu ko xoolee dal daat nañuy confirmer na néew bi Fulbert Sambou waaye nag ay mbokkam daal nee nañu nag waxi ñii dañoo lab ci géej gi loolee moom ko dégg tey duñu ko dégg ëllëg yéen kay gi du l'Observateur nee na Fulbert Sambou mi xam ne moom la ñu njort ne moo faatu ñi nga xam ne nag ñoo ko xam ne maanaam ku oyofoon la ku maandu ku réservé ku discret ku courtois yéen kay gi di exclusif xëy duñu xibaar naan ñu ci ayug Macky Sall gi scandale yi bëri la la la ma ne lay scandale yi ma diplomatique ñaari député benn bokk yaakaar ma ne la gis nga gis nga beneen njombe boo xam ne xew na assemblée nationale mooy falsification règlement intérieur ki nga xam ne mooy Mamadou Lamine Diallo bu tekki moom nag moo ko njëkk a wax wax ne sax dina daal porte plainte waaye nag Doudou Wade Doudou Wade Doudou Wade moom tim daan na koy dëggal daan na koy confirmer te nag nee na li nga xam ne nag mooy règlement intérieur bu assemblée nationale loolee a la andi ne mooy Doudou a fa mbaxana doonee benn yéen i kaay gi de Le Quotidien yor yor nee na encore du faux à l'Assemblée yéen i kaay gi de Direct News xëy duñu xibaar naan ñu coowul 29 milliards yu Prodac yi nga xam ne moom la ñuy joxar yu baaraamu tuuma Mame Mbaye Niang ba léegi pënd bi wuréeku la ndax nag député yi nga xam ne ñoo bokk ci coalition Yewwi Askan Wi nee na ñu nañu si ubbi ab commission d'enquête parlementaire Guy Marius Sagna nee na nag lu toll ci juróom benn fukki xale ñooy faatu bis bu set xale yoo xam ne amuñu juróomi at te nag nga xam ne moo tax xale yi faatu maanaam plateau médical boo xam ne maanaam dafa dafa nasax ba pare nag personnel bi manqué ba maara day talee ndax Guy Marius Sagna nee na Sénégal manqué na lu toll ci mille quatre cent quarante neuf ci assistant infirmier waaye tamit Sénégal manqué na lu toll ci six cent quarante et un assistant sociaux Sénégal nag soxla na lu toll ci neuf cent soixante quinze ci ay waaye tamit Sénégal manqué na lu toll ci deux cent quarante quatre ci technicien supérieur mën na lay gis nga personnel bi lii lépp Sénégal soxla na ko ngir nag mën a am faj gu baax waaye nag Guy Marius Sagna nee na nag li nga xam ne mooy faju askan wi daal Sénégal loolee ci boppam yitteelu lool ñii nga xam ne nag ñoo fi nekk yéen kaay gi di réew mi quotidien nee na ni ki démb la woon bis nga xam ne moom lañ jagleel nag xale yi seen àq ak seen yelleef directeur des droits humains daat nay wax ne lu toll ci 334 ci mineur ci xale yu ndaw yoo xam ne ñoo ngi ci kaso bi yéen kaay gi di réew mi quotidien xëy duñu xibaar naan ñu tay la tay tay la diggante Sénégal ak Qatar bu 13h jotee Kalidou Koulibaly moo leen di xaar ci seen diggante ak Qatar dem ba jeex ñibbi si rek yéen a kaay gi di waa grand place Aliou Cissé mi nga xam ne mooy entraîneur bu Sénégal nee na on est dos au na la gis nga sës ngeen ci mur bi de match la boo xam ne bu jafe-jafe lay doon entraîneur bu Qatar bi moom nee na am na confiance ndax nag xam na fan la Sénégal mënee ak fan la Sénégal mëneewu la yéen a kaay gi di Walf Fadjri ñu xëy fekk fa Kalidou Koulibaly nee na ñoom amatuñu sañ-sañ di def erreur amatuñu sañ-sañ di def erreur ba pare Kalidou Koulibaly nee na ñoom daal bëgg ñoo teel a ñibbisee waaye nag bu ngeen bëggut a teel a ñibbisi da a daal di wax nee na défaite interdite au Lion stade yéen a kaay nee na nag il faut sunu équipe nationale bi sunu gaynde yi maanaam fexewaat ba askan wi am xel mu dala maanaam espoir yaakaar daal judduwaat yéen a kaay gi du l'observateur nee beeg Aliou Cissé il faut nag ñu moytu catastrophe yéen a kaay gi di record nee na impérativement bu Sénégal dafa war a am victoire yéen a kaay gi di enquête nee na gagner ou périr yéen a kaay gi di Dakar Times moom nee na